ku fa dem tey xam ne carrelage vestiaire yeeg yooyu yëpp pare na gazon bi yegg na taaye nañ ko plusieurs fois installation pompe yeeg li koy arroser muy arrosage automatique lépp gis nañu ne pare na lenn rek moom moo ci des mooy peinture ak taal projecteurs yi te loolu amatul benn jafe-jafe sur le plan administratif et entrepreneur bi commandé na lépp li des mooy fii ak fin octobre rek ñuy ñaan yàlla ñu mën a avancer trop ba nga xamante ne début bu au a a ñëw stade bi en tout cas suñu date bu amul benn rëq-rëq date boobu la ñu jàpp ne lépp war naa pare comme nag liggéey la boo xamante ne lépp dafay am ay retard ak yooyu mais retard yi ñu ngi def lépp pour juguler ko ba nga xamante ne président Macky Sall dina mën a jëbal sport loolu nga xamante ne dina taaral suñuy infrastructure mais dina nekk loo xam ne dinañu permettre bu ñu tëjee Léopold Senghor ñu mën a footballu Thiès bu ko FIFA homologué ak fi ñu jëmit dinañu ci dimbale parce que nag Sénégal laaj na ñu organiser CAN ay 2023 2023 mooy suñu cap boo xam ne bu ñu ca yeggee ñu war a mun a laaj li nga xamante ne mooy kaan parce que dinañ am ay stade yu ñu permettre ñu organiser ko yàlla dinañu ci dimbale 55 000 places stade olympique bi président Macky Sall jox na leen rendez-vous 2020 loolu bu paree Thiès pare ñu defaraat stade Léopold Senghor jàppale Ziguinchor jàppale stade Me Babacar Sèye bu bu Saint-Louis defe naa ne dinañu mun a am jumtukaay yu ñu permettre ñu abriter compétition internationale